Serigne Khadim Bousso soxna saa ngi lay nuyu te di la ndokkeel ci seen bisu bopp bi nga xam ni yéen ñaar a ko bokk na bisu tey bii bis mën na koo gën a xumb ci yoon wi waaye bis mënu koo gën a rëy ci yoon wi li ma wax ni nag communication ak modernisation mooy waral lépp waaye bisu démb bi ak bisu tey bi ñaar ñi ko sekk te moom ko bu ñu tuddee sëriñ bi rek noonu dañ leen cee war a teg bu ne sëriñ Abdourahmane ne sëriñ Mbacke Bousso ndax li taxoon sëriñ bi ñëw jamono moom da ko waxal boppam lil Moustapha naweytu maa yu jaddidu sunnatoo xaraa wa indi ahmadu ku bu ndaam nga mokkal alquran lay mot li sa xam-xam nañ naan demal gere bu soo loolu nag liggéey la boo xam ni day fondement bu sëñ Tubaa defar maam Cerno Birahim sëriñ Mbàkke Buso suñ sëñ daam Abdourahman loo ndax yoon wi dama ni nag lu mu xumb xumbit bu ñuy fàtte keno yi ak membre ak membre fondateur yi bi sëñ bi ne rabbi bi bil imma walaatu rabbi bi dar siim faqat ñu newoon ci daara ja nag ay téeméer téeméer lañ waaye la dem ñibbi moo ëpp la fa des ña fa toog nag doon xaar ba noppi sëñ bi ne leen lu baax tey ak ëllëg maa ko yor te te buñ xoolee sàq mi pepp fanaanu fa ñooñu toog di muñ loolu mu digg fi bàyyi leen fi dem ci géej gi si ñu koy xaar ba ñibbisi bi mu ñëwee it foo mu fa mu fa mu leen dëjoon ne fa la fa la leen fekkaat ndax bisu tey bi loolu bi mooy fa mu ko dëjoon ne toog fa nga eh, xaar ma fa foofu la toog di ko xaar ba sëriñ bi fekkaat ko fi kon nag soxna saa ngi leen di ndokkeel bu baax ci seen bisub bopp bi di wax ni yow nag say qualité ak say taxawaay ak sa jikko loolu rek la la jàppee soxna Baal mën xaa day wax ni man de kër te laa nekk ay kii yàgg ak kii fi ñëw tey nee na moom xamul loolu day far di wax ni li fi bàyyi Cheikh Diop Kokki moo fi bàyyi Mamoun Lo moo fi indi Cheikh Mbacke ja moo fi indi sëñ Xaadim Buso mi muy indi sëriñ bi kenn ku ci ne nag fa nga tey am ci ci ci ab nattuwaay ci say taxawaay bopp la nee na waaye mu xam le démb ak tey mel na ni yaa moom ànd ngeen junni at te nee na loolu nag sab dox la ak sa taxawaay ak sa pas-pas ndax lii sëñ Modou Mamoun wax léegi mooy li wér soxna baal nee na moom benn nattukaay la am muy indi sëriñ bi te bariwaana nag ñu mel ni yow faree fi nga fare bu ñu jàngee fii ci dëkk bi ba noppi ba nu génnee leen ñu jàngee leneen loo xam ne bokkiwut ak njàngum dëkk bi bu nu ñibbisee leen jàngoon ci dëkk bi danu koy bàyyi lan jàngoon fee ñu jëm moom la ñuy indi imposé ko nit ñi par force. waaye yow bi nga demee ba cultivé wu ba xam lépp ni mu demee dagaa ngaa dellusiwaat ci ki nga xam ne mooy euh, Serigne Touba jëral lépp delloo ko ko nee na loolu nag bokk na ci lam la gën a nawee bokk na ci lam la gën a fonke ndax muy man di yow sunu askan ñu bokk. am na ci ñoon bu ñu wàññi rek beneen taxawaay la ñuy taxaw beneen gisit la ñuy am waaye bi nga ñibbisee nag pëstéef bi daa dolliku taalibe gi dolliku nga sol robb avocat nag solal ko yoonu murit gépp fu nu tuddee sëriñ bi bëgg a takkal lenn loo xam ni mi ngi wut ak sunna ci moom nga setal ko ba mu set indum mbindum sëriñ bi li may faral di wax ni nag naar yi suñu yeneen mbokk yi doon du fa jiitu waaye ñoom seen xaar ñi bu woon fa njëkkoon dem lu bu bu nee sëriñ Tubaa Màkka ba Madina ñëpp ne indi wax a ndax diggante sawdu saxaar ba saxaadatu talaab koo ko teg ci loxoom dana xam ne ki bind lii amul morom te ku mel ni moom mos a ñëw àddina yow nag boobu nga yor yor ko yor mu rafet doxal ko doxin wu rafet nee na même bu dul sax li nga sekk ak moom yow foo taxaw ñoom war nañ laa njukkal war nañ laa ndokkeel rawatina nag moom mii nag nga def ko sa ne juru bopp def ko sa bàjjanu bopp looy dugg lu ne di di nga ko tàggu lu mu ne lu ne nga nga diisoo caag moom lépp lu mu la digal da nga ko def te lépp loo xam ni natt nga ni bu la ca déggoon du doon lu koy gënal soxna bàyyi leen musul la caa gis nee na nga boole kook yar boole kook teggin boole kook dal ànd kook discrétion bu mat nee na man nag soxna bàyyi mun taxaa ku yàgg a jaxasoo laa xam naa ñëpp waaye taxul may wax ñëpp waaye nee na sëñ Xaadim bu sa mii mi ngi seeral ñëpp ni xam na ko jàpp na ko te ku muy ku muy waxal la nee na loolu yi nag buñ ko xoolee ci différence su at yi dan naan mënta ne nee na waaye nag sa jikko moo la ko may ak sa taxawaay nee na it nu ko waay nee na képp koo xam nit yàgg nga ciy loxo nu la téye da nga koy xam nee na bëgg gi mu ko bëgg ak cofeel nga am ci moom nee na moom soxna Baali Muntaxa mi yëgal na ko boppam te it eh, xamal na ba sa biir mbokk bi def moom xam na ko te téye na ko te jàpp na ko olof nee na nag làmmiñ mën naa wax lu mu gëmul nopp dégg ko naqari te te du ca dara bët xool loo xam ni du ko bëgg waaye du ca man dara waaye tànk fu mu dem nag borooma ko fa yóbbu kon nag nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la gën a encouragé ci yoon wii nga ne nga gën cee sax da te gën cee jàpp lenn la ko gën a neex mooy bi nga demee ba ñibbi siit it da ngaa innové mooy da ngaa créé emploi ci dëkk bii di Touba te mënoon ko koo de feneen wala nga desoon na ci réew yooya ñu la fay fay salaire yu baax nga toog fa di liggéey waaye li ngeen wax ni nag lu nu baax lay indil ko sëñ bi lu nu gën la indi ko sëñ bi nee na loolu def nga ko ndax yaa ngi contribuer ci développement Touba kon nag sant nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax bis bi daal soxna si nee na xam na ni lu ci waay fas bis bi àttan na ko sëñ Touba maamam nag moom mii moo yëmbut kenn ndax dama ne tarixa boo xam ni boo yónnee Cerno bi mu dem boo yónnee sëñ Mbàkke mu Buso mu dem boo yónnee sëriñ Abdourahmane loo mu dem yow ma def loolu war noo xoolaat yow yaay kan dafa am bis sëriñ bi toog ak maamu Cerno Birahim ak sëriñ Mbàkke Buso bi bi yii ni waxtaan ba ci yàgg sëriñ bi daat ni kon nu laal der bi te julli sëñ bu Buso ak maam Cerno di di xëccoo der bi ngir lalal ko ko bii nu sëlmalee sëñ bi ne leen man de sama xel dal na te la ma bëggoon ci yéen it yàlla defal na ma ko ndax ndax kat ude bi ni mu def der bi wulli ko ba mu nooy noonu laa def seen yaari xol yi ba ba kii doon sama doomi nijaay kii doon na sama doomi baay ngeen di xëccoo der bi ngir la la lalal ma ko moo bi ne tarixoo xëyru turux rek at ba axoo xayrul firaax te sëñ Mbàkke bu sof loolu kenn jiituwu ko ci ñun ñi nga xamit ñooy njabootu soxna si bëgg gi nga bëgg soxna si fësal nga ko ci ñun kenn ku ne ci ñun man boog laa wax maa ngi koy seereel euh, soxna baaji danaa jékki-jékki ab wépp wala orange money dugg sama téléphone am ci semaine ba ba ba dëbbi sa bis bi dellu si ci la ma ndaw di door a wone ma sëriñ Xaadim bu so imaam moo ko ci def te te te bu ma koy woowaat sax du mën a ngoo damay message ak ne ma yow ni nga ni nga def sunu yaay ji ak ni nga ko taxawoo moo tax yéen ñun ñoo leen war a nekkal kilifa nag boo nee bëgg naa ko dem ba jàpp ni ñi nga njort ni doon nañ lenn ci liggéeyam nga leen di taxaw kon bëgg googu dëgg la kon daal bàjjan sant na la te gërëm na la bis bii bu la neexee man nga koo tànt ñaari tànt wala neexee nga ne ngaare baas bii sama baay laa ko baasal baas bii sama yaay laa ko baasal ndax ne sa baay ni sëriñ sëriñ Mbàkke Buso sa yaay sëriñ sëriñ Mbacke Bousso ndax sëriñ Assane Bousso mi nga xam ni moo meññ sa waajur wu jigéen bi bi biñ ko laajee lan na lan nga bëgg dana leen rek laay ñaan yàlla te loolu da koo bind mooy bu ma demee ci rasulullah yi naa fa sax dàkk te des fa kero bi sëriñ Abdou Khadre dem Màkka samaam ànd ak moom bi mu tiimee Kaaba gi daal ne allahu bar fala daal di seddu guy ñu yemale ko foofa ci naa euh, Seydunaa Muhammad kon yow bis bi ay cëri cër nga ci am soxna Baali daal mu ngi lay sant mi ngi lay gërëm yool wu ngeen am ci bis bi wala luñ ci ñaan mu nangu it nee na mi ngi sàpp ngeen ñaanal it seen wéyjur bu baax wi di Seex Mamadu taxaa yàlla dëgëral ko te yàggal ko fi moom it mu topp ci ginnaaw di ko liggéeyal te saa nu gër soo gis nu wasalaamaaleykum bari. te keroog sax bi ñu ko waxee. nee te keroog bi ñu ko waxee. yaa amoon leneen la war a def. yaa amoon leneen la war a def. am gan ñu war a ñëw ci yow. am gan ñu ñëw waroon na ñëw ci yow. waaye da leen a fomm. waaye da nga leen a fomm. ngir ñëw ci bis bii. ngir ñëw ci bis bi sa tànk yii nag. ne sa tànk yii nag. diis na ci man lool. ne diis na ci man lool. mënoon ngaa yónnee rek. mënoon ngaa yónnee rek. mbaa nga woote rek. mbaa nga woote rek. mu doyoon sëkk. kon mu doyoon sëkk. waaye nga ñëw. nee waaye nga ñëw. ànd ak ñii nga àndal. ànd ak ñii nga àndal. suñ maamun mi. nee sëñ maamun mi. luñ wax ci moom rek. luñ wax ci moom rek. ñun la koy defal. yooyu ñun la koy defal. foofu mu nekk ci yow. ndax foofee mu nekk ci a nekk. ñun ñii na nekk. kon ñun la fa nekkal. mais kon sëñ Mamoune Lo ñun la fa ko ñu la war ñu ñu jox ñu war ko. suñu Cheikh Diop mii. yàgg nañ koo dégg. yàgg nañ koo dégg. taxawaayam si. mais taxawaayam ci soxna moom it kon ñun rek la fa nekkal. waaye soxna si nag. mais waaye soxna si nag. ñu bari dañoo jàpp ni sax suñu xamante dafa ñu bari danoo jàpp ni sunu xamante yàggut waaye mën naa ni moo ñu yar waaye man naa ni soxna si moonu yar man ak sama rakk yi man ak sama rakk yi ak suñu mag ak sunu mag sunu ñaari mag yi. ak sunu ñaari mag yi. ndax Sacré Cœur. ndax Sacré Cœur. ba mu fay nekk. ba mu fay nekk. di dal ci taalibe bu ñuy wax maam Fatou mbay di dal ci taalibe bu ñuy wax maam Fatou Mbaye. ñu fay nekk ak moom. ñu fay nekk ak moom. booba mën naa ne dis huit ans la am. booba mën naa ne dix-huit ans la am. mu taxawuñu lool. mu taxawuñu lool. ci ay conseil ci ay conseil. ak i ñaan. ak i ñaan. ak i ak di ñu aar. ak di aar. loolu nag. loolu nag ak cant la ci ñun ak cant la ci ñun ndax soxna baali ndax soxna baali ñu bari bu ñu nee soxna baali ñu bari bu ñu nee soxna baali seen xel sax du dem suñu soñe bu seen xel sax du dem ci suñu soñe bu moo tax ka ko waxoon fan yee ni ko soxna suñu dan daf ko wax ni ko mais moo tax sëñ dan daf ko wax ni ko da ngaa nekk fi sëñ tubaa di liggéey da ngaa nekk fi sëñ tubaa di liggéey ba sëñ tubaa fekk la fi ba sëñ tubaa fekk la fi baat boobu daf ma ma marqué lool ne baat boobu daf ma marqué lool ba muy liggéey ci kër suñu muntaxaa ndax bi muy liggéey ci kër Cheikh Mamadou Muntaxaa def ak yéene sellal ne dafa doon def yéene ak sellal waaye mu xamul woon ni mukk sëñ tubaa dina ko doon waaye xamul woon ni sëñ tubaa dana ko doon ndax sëñ muntaxaa mës na xaar loolu waaye ndax sëñ muntaxaa mës na xaar loolu moo tax yàlla jox ko ne moo tax yàlla jox ko ko ñuy ñaan mu yàgg fi lool ñuy ñaan Cheikh muntaxaa yàgg fi lool te wér lool ne te wér lool nga yàgg fa lool tamit ne nga yàgg fa lool te wér lool tamit te wér lool ñu bari nag ne ñu bari nag xamuñ ko xamuñ ko ndax man xam naa ni ndax man xam naa ni sawwaama la sawaama la xawaama la xawaama la kuy dundal guddi la kuy dundal guddi la ku bari lu muy woor la ku bari lu muy woor la donte ñu bari xamuñ ko ci moom donte ñu bari xamuñ ko ci te ñaari jaamu yàlla yooyu mais te ñaari jaamu yàlla yooyu mooy jàmm yàlla yi gën a rëy mooy jaamu yàlla yi gën a kawe daa am kilifa gu ma nettali ni ma daa am kilifa gu ma nettali ni ma sëriñ Chouaïb bu dafa mas a wax sëriñ Chouaïb bu dafa mas a wax woo ak njabootam ba ñëw woo ak njabootam ba nu ñëw mu leen na ngeen góorgóorlu mu ni leen na ngeen ndax bu ëllëgee fuñ buñ nekkee ca bari sax gee bu ñu nekkee ca basha ku ci gis sa njaboot ne ci lu baax ku ci gis sa njaboot nekk ci lu baax da ngay ñëw ci sa ña fa nekk di maare di di di mubaaxaat ak ñoom di maare da ngay ñëw ca ña fa nekk di ba di maare di ko ndamoo di ko ndamoo di ko ndamoo ku moo tax kon na ngeen góorgóorlu ne kon na ngeen góorgóorlu

ndax suñu bu ndax sañ Suwaybu mos naa am ñu mu àndal mas naa am ñu mu àndal di dox ba mu yàgg di dox ba mu yàgg mu gis am picc mu dee ba medd mu gis am pecc picc mu dee ba medd nekk ci naaj wi nekk ci naaj wi suñu bu taxaw ni jonn sañ bu taxaw ni jonn ni jonn jël picc mi jël picc mi teg ko ci ker gi teg ko ci ker gi ki ñim àndaloon am ko laaj ni ko ñim àndaloon am ko laaj ni ko lu tax nga def lii lu tax nga def lii su ma juumul sa suñu abibu la su ma juumul sañu abibu la mu ne ko dama koo teg fee ngir bëgg bu ëllëgee suñu borom yërëm ma ne ko dama koo teg fee ngir bëgg bu ëllëgee suñu borom yërëm ma kon loolu bu ko defee yërmaande rek a tax ne bu ko defee yërmaande rek a tax ku yërëm ba yërëm njanaaw yi ne ku yërëm ba yërëm njanaaw yi sàkkantumaa njaboot gi nga yël sàkkantumaa nga yël moo tax yërmaande ji mu am ci ñëpp moo tax yërmaande ji yaakaar naa kon foofa rek la ko jëlee ne foofa rek la ko jëlee saa yoo ne soxna baali saa yoo ne soxna baali xel yëpp si muntaxa lay dem xel yëpp dem ci Cheikh Mamadou Muntaxa ñu bari fàtte suñ soye bëggi sax ñu bari sax fàtte suñ soye bëggi te muy suñ Tuubaa ci te muy samuy doomi Serigne Touba sëñ Chouaib te moom muy Serigne Touba te moom muy Serigne Touba kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ne ñu ngi koy sant bu baax a baax man nag aw ma lu ma ko mën a faye ne man aw ma lu ma ko mën a faye ndax daf maa uuf ndax daf maa uuf yërëm ma yërëm ma sàmm ma sàmm ma aar ma aar ma. boole moo ak sama mbokk yi. boole ma ak sama mbokk yi. sama rakk yi nii. sama sama mag jee suñ sëriñ. ak sama mag jee muy sëñ sëriñ. ak suñ baaxir muy sama mag. ma lay seedeel soxna si ni la. ma soxna si ñun ñii nga xam ñooy waaju njaboot suñ suñ gëne. ñun ñii nga xam ne ñooy njaboot suñ gëne. sama xol fi mu toll ci yow. sama xol fi mu toll ci yow. ñoom ñëpp foofu la ci ñoom. ñoom ñëpp fa la ci ñoom. ñëpp ñi nga woon seen kër di màggal. ñoom ñëpp ña woon seen i kër di màggal. maa leen message léegi leen maa leen misaal ni leen soxna baali ñëw na. gaaw leen gaaw leen daanaka ñoom ñëpp ñu ak seen ñoom ñëpp ñu ak seen ngir cofeel gu ñu am ci yow ngir cofeel gu ñu am ci yow ak bëgg guñ la bëgg ak bëgg la bëgg ak mm, am yéene guñ am yéene ci yow ak am yéene guñ ci yow ñoom ñëpp ku ci nekk ñoom ñëpp ku ci ne maanaam moo ma gën a bëgg ci yow moo ma gën a bëgg ci yow moo la gën a bëgg ci man moo la gën a bëgg ci man kon loolu ne kon loolu. dama ciy sant yàlla. dama ciy sant yàlla. mënoon naa laa bëgg. manoon naa laa bëgg. ba pare duñ la jubu. ba ñoom duñ la jubu. waaye nag niñ la juboo ñoom ñëpp. waaye niñ la juboo ñoom ñëpp. keroog bañ jógee sa kër. keroog bañ jógee sa kër. ñun ñëpp yow la waxtaanee ba bët set ñun ñëpp yow la ñu waxtaanee ba bët wallaahi alasim wallaahi ku nekk di wax ci yow lim xam xam. lu baax. lu baax. te loolu yaa ñu ko wan. te loolu yaa ñu ko ji. kàddu yi mën naa gudd. loolu mën naa ne kàddu yi mën naa gudd. waaye lépp. waaye lépp. làmboo. mooy soxna si. mooy soxna si. di ko ñaanal. di ko ñaanal. suñu borom gën koo sàmm sunu borom gën koo sàmm. gën koo aar gën koo aar. aw fanam gën a gudd. aw fanam gën a gudd. ndax bu bu bu fi yàggee. ndax bu fi yàggee. ñëpp dinañ njariñ ñëpp danañ jariñu sama xarit bi sama xarit bi soxna Marème Faye soxna Marème Faye dañuy waxtaan léeg-léeg dañuy waxtaan léeg-léeg ma koy ma koy ma koy tudd soxna si ma koy tudd soxna si kooku kenn daa xamul lu mu bëgg mu ne ma kenn daa xamul lu mu bëgg ndax kenn du xam soxlaam ndax kenn du xam soxlaam nga xam ni moom da koy jongoru nee nga xam moom da koy jongoru di bëgg mu xam soxlaam di ko xam soxlaam di ko mën a faj waaye soxna si soxlaam waaye soxna si soxlaam xam na ni maamam rek ko mën a xam na ni maamam Serigne Touba rek ko mën a faj wallaahi nii la ma ko Marème waxee wallaahi nii la ma ko Marème waxee baali de moom ni ma soxna baali moom kenn mënta xam soxlaam kenn mënta xam soxlaam te loolu bo ak li nit ñi foog te bokkut ak li nit ñi foog ndax xam na ni moom soxla su am ndax xam na ni soxla su am sëñ tubaa dina ko faj sëñ tubaa dina ko faj kon jërul ma koy diis kenn kon jërul ma koy diis kenn kon daal mu ngi noonu laa biir na ne laa biir na baax na baax na bëgg na ay mbokkam bëgg na ay mbokkam sàmm na leen sàmm na leen néew na ci kër doomi baayam yi néew na ci kër doomi baayam yi néew na ci kër doomi baayam yi foofay dugg foofay dugg. te gisoo fa yére bu mu fa yóbbu. te gisoo fa yére bu mu fa yóbbu. wala ndab lu mu fa yóbbu. wala lu mu fa oto bu mu fa yóbbu. wala oto bu mu fa loolu lépp nag. ne loolu lépp nag. da nga naan soxna si nu mu ko mënee sax. da naan soxna si nu mu ko mënee. ndax defut lu muy yaxantoo. ndax defut lu muy yaxantoo. defut lu muy wute alal. defut lu muy wute alal. lu muy dimbalee képp lay def. lu muy dimbalee rek lay def. kon soxna sa tànk yi. ne soxna sa tànk yi. lu rëy la ci ñun. ne lu rëy la ci ñun. daa mel ni ci ñun. daa mel ni ci ñun. Bousso. loola bu amoon dana rëy lool. nee loola bu amoon dana rëy lool. ñun nag. nee ñun nag. liñ nekk. liñ nekk. muy di liggéeyal seen maam. di liggéeyal seen maam. moo ñu war. nu war li tax mu war ñu li tax mu war ñu muy suñu maam suñu mbàkke buso mooy suñu maam suñ mbàkke buso daa am benn bis mu toog daa benn bis mu toog sëriñ bi woolu ko sëriñ bi woolu ko ba mu ñëwee ba mu ñëwee ni ko mbàkke damay am gan ni ko mbàkke damay am gan te damaa bëgg nga ko te damaa bëgg nga fekke ko mu ñu toog ba mu yàgg. nee mu toog ba mu yàgg. am ku ñëw ku sol lu weex tàll. am ku ñëw ku sol lu weex tàll. sëgg ngunum ngunum ak sëñ bi sëgg ngunum ngunum ak sëñ bi. ba mu yàgg mu génn di dem ba mu yàgg mu génn dem ba mu yàgg mu dëppaat ba mu yàgg mu dëppaat am lu mu waxaat sëñ bi am lu mu waxaat sëriñ bi doo ko demaat doo ko demaat sëñ bi ni ko mbàkke sëriñ bi ni ko mbàkke ndax xam nga koo kan la ndax xam nga koo kana mu ko Seydina Jibril la ne mu ni ko Seydina Jibril la sëñ mbàkke ni ko dimbali boo ma dimbalee ma jël sëñ mbàkke ni ko boo ma dimbalee ma jël mu ni ko Seydina Jibril mu ni ko Seydina Jibril la mu ni ko ndax xam nga lu ma doon doyee mu ni ko xam nga li ma doon doyee mu ni ko boo ma ci dimbalee ma jël mu ni ko boo ma dimbalee ma jël daa ñëwoon ni ma ni mu ñëw ni ma daa ñëwoon ni ma suñu borom nee na suñu borom nee na rafaati na la lislaam jëpp rafaate na lislaam jëpp diine jëpp yaa ko moom diine jëpp yaa ko moom bi mu dëppaatee it mais bi mu dëppaatee it ni ko waaye nanga ci cëral mbàkke bu sóor ni ko nanga mbàkke bu ko ah mbàkke daan ko ah mbàkke ba muy ñetti yoon ba muy ñetti yoon mbaa duma leen wan ginnaaw mbaa duma leen wan ginnaaw diine ji di rafle diine ji rafle suñ mbàkke ni ko suñ mbàkke ni ko bu naree am bu naree am sama bakkan du ko fekke sama bakkan du ko fekke ndax ko ñag ba mu ñagu ndax ma toog ci bunt bi ma toog ci ko nar a yàq ku ko a suñu cër loola mooy suñu cër ndax sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa dañoo defal dañoo defal loo xamante nii loo xamante nii mën naa waat ci yàlla defalu ko kenn mën naa waat ci yàlla defalu kenn ndax suñ Mbàkke ndax sëñ Touba moom rek la doon wax. sëñ moom rek la doon wax. yaa ibna ammati wa xaali. yaa ibna ammati wa xaali. waaye bu ne ko sama doomu bàjjan. waaye bu ne ko sama doomi bàjjan. sama doomu nijaay. sama doomi nijaay. da koo mu toll ci moom rek. da koo bëgg a wan fi mu toll ci moom. mas naa toog ak moom ba mu yàgg. mas naa toog ak moom ba mu yàgg. ni ko Mbàkke doo ma sanga. ni ko Mbàkke doo ma sanga. sëñ Mbàkke tontuwut. sëñ Mbàkke tontuwut. ndax du sangante sëñ bi. ndax sëñ bi du tontante du sangante moom. sëñ bi comme daa sol mbubb yu bari. nee sëñ bi daa sol mbubb yu bari. mu ni xaaral ma sang la bokk. mu Adama Sànq la sëñ bi jël mbubb ma sëñ bi jël mbubb ma sëñ Mbàkke jël mbubb ma yóbbaale sëñ Mbàkke jël mbubb ma yóbbaale sol yóbbaale Mbàkke mënuñoo Mbàkke ko moo ko defal bi ndax moo ko defal sëriñ bi keroog bi sa ñëw nañ ñoom suñu Abbas bu sa ñëw nañ eh, nuyoog sëñ Mbàkke nuyoog dañoo fekk mu jàpp dañoo fekk sëñ Mbàkke jàpp ba coppooral ba coppooral ñu daan le xanaa ku baax ki moo ñëw Touba mu ne xanaa ku baax ki moo ñëw Touba sëñ gànnaa ngi koy wax léegi sëñ gànnaa ngi koy wax léegi biñ ne sëñ bi ñëw na Touba biñ ne sëñ bi ñëw na Touba daa am ñu yuuxu ne daa am ñu yuuxu ndax xam nañ ñëwin wa ndax xam nañ ñëwin am ñu sar xolle am ñu sar xolle ndax xamuñ ñëwin wa ndax xamuñ ñëwin wa waaye suñ Mbàkke moom waaye sëñ Mbàkke moom daa jóg daa suñu Abbas daa jóg ni sëñ Abbas man de nam a a wa weer ndax wàllu yu bu toll ni sëñ bi ndax wàllu yu toll ni sëñ bi du wax wàllu yi sax du ma wax wàllu yi sax du ma wax wàllu yi sëñ bi ëpp na wàllu yu sëriñ bi ëpp na wàllu suñ borom da koy wan kañ la fiy jógee suñ borom da koy wan kañ la fiy jógee ndax ñoom dañ leen di tàggu ndax ñoom dañ leen di tàggu comme ni ñuy tàggoo yonente yi comme ni ñuy tàggoo yonente yi booba it bañ ñëwee it booba it biñ ñëwee it sama am ju baax ja sa maam ju baax ja daa woon suñ mbàkke ay jamono daa woowoon suñ mbàkke ay jamono ni ko ni ko mbàkke ni ko mbàkke ëllëgee fii la su ëllëgee fii la keroog ba nga xamante ne nii. keroog ba nga xamante ne nii. ku baax ki bàyyi na fi. ku baax ki bàyyi ko fi. la njëkk a jaaxal suñ mbàkke la njëkk a jaaxal suñ mbàkke mooy dani maa ngi ko tiim nii moo tax da dani ko maa ngi ko tiim nii war koo taxaw war koo taxaw te neewoon na ma dañ ànd aji te neewoon na ma nan ànd aji te lu ma mës a wax te lu ma mës a wax te ñëwagut te ñëwagut moom laa gën a gëm moom laa gën a gëm ci li ñëw ba pare ci li ñëw ba pare moo tax bañ àndee ajali ko moo tax ban àndee ajali ko ànd ak suñ fàllu ànd ak Cheikh Mamadou Fadal sa waajur bu baax sa waajur bu baax ak maam Cheikh Anta ak maam Cheikh Anta ak ñu àndaloon ñëpp ak ñu mu àndal ñëpp kero suñ mbàkke dafa jooy kero suñ mbàkke dafa jooy xam ni dooma di bàyyi rek xam ni dooma di bàyyi rek kon yaay suñ Tuubaa kon

loolu foofee la ko njëkkoon a suul foofee la ko njëkkoon a suul ginnaaw ba mu jël ko ca gannaaw bi mu jël ko jox ko suñ dumbee mu suul ko fi jox ko sëñ ma dumbee mu suul ko fi ci bépp moo tax keroog ne moo tax keroog ba suñ mbàkkee defee loolu ba suñ mbàkkee defee loolu taxaw taxaw boobu taxaw taxawaay boobu taxaw bu diis taxawaay bu diis boobu mu taxaw taxawaay bu diis boobu mu taxaw daa mel ni xamul sax lu ko taxawloo daa mel ni xamul lu ko taxawloo ndax ba mu jàllee ndax ba mu jàllee daa continué di ko wax daa continué di ko wax naan cay bee taxawaay naan cay bee taxawaay cay kama tiimoon cay kama tiimoon cay lam defoon cay lam defoon cay lam waxoon cay lam waxoon kon daa mel ni kon am na luñ ko soloon ba mu koy def daa mel ne am na luñ ko soloon kenn ba mu koy def waaye daanaka loolu moo ko topp waaye daanaka loolu moo ko topp ba mu jógee mu jógee màkka ba mu jógee màkka tàngoor woo ko toppoon tàngoor woowu moo ko toppoon ci loolu la jógee woon ci loolu la jógee woon kon ñun amuñ ku dul yéen kon ñun amuñ ku dul yéen ndax yéenay ñun ñu ne ñu ne yéen yéenay ñun ñu ne yéen waaw ndax mbàkkeeg bu soobee la ndax mbàkkeeg bu soobee la te suñ tubaa moo ñu defal lépp te suñ tubaa moo ñu defal lépp kon suñ goree kon suñ goree dañ leen di fonk rek dañ leen di fonk rek dañ leen di teg ca kaw dañ leen di teg ca kaw ndax yéenay suñu lépp ndax yéenay suñu lépp rawatina nag rawatina nag bu ngeen ñu ko wanee bu ngeen ñu ko wanee ci seen jikko yi rafet ci seen jikko yi rafet soxna sa jikko rafet na soxna sa jikko rafet na sa doxin rafet na sa doxin rafet na sa ni rafet na sa na yàlla la cat aar la aar la sàmm la sàmm la ku lay xaar ku lay xaar yàlla na xaddi yàlla na xaddi yàlla na yàlla guddal saw fan yàlla na yàlla guddal saw la wéral lii nag lii nag rëy na ci ñun ko rëy na ci ñun lool njaboot suñ géde gépp njaboot sañ géde gépp suñ njaaña gépp sañ njaaña gépp suñ mbàkki sa gépp ak sañ bu sa gépp ñoom nga ko defal tey ñoom nga ko defal tey sa tànk yi day sa tànk yi day ci gédé gii ci gédé gii suñ soñ bu yëg na ko suñ soñ bu yëg na ko suñ muntaxaa mi suñ muntaxaa mi ñu ngi koy ñaanal moom ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér mu yàgg fi te wér keroog bi ma décidé keroog bi ma décidé jógee ci imaam nga jógee ca imaam nga ñibbi si Sénégal ñibbi si Sénégal moom mi laa ci njëkk waxtaan moom mi laa ci njëkk waxtaan la ma wax mooy boo ko defee def lu baax mu ne ma boo ko defee def lu baax waaye baatin da ca am waaye baatin da ca am ndax ba ma suñ mustahin joxee sëñ bi ba ma sëñ mustahin joxee sëñ bi ba ma ko waxee ba ma ko waxee dani ma alhamdulilah dani ma alhamdulilah looy def foofa rek looy def foofa rek fii laa ko gën a soxlaa ci yow fii laa ko gën a soxlaa ci yow te moom laa ci diisool te moom laa ci diisool soo ci diisoo woon ak moom pare sëñ bi wax ma leneen bu ma ci diisoo woon ak moom sëñ bi wax ma leneen naa amuk jaaxle lool kon dinaa amuk jaaxle waaye lam ma wax waaye lam ma wax la ma sëñ bi wax la ma sëñ bi wax sëñ tubaa nag moo mel noonu sëñ tubaa moo mel noonu xam naa ni guddal naa lool xam naa ni guddal naa lool si itte yi bari na te soxna si itte yi bari na sëñ maamun sëñ maamun xamal ni daal lii xamal ni daal lii kàddi xol la kàddi xol la moo tax mu gudd moo tax mu gudd ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax di la gërëm bu baax doomi soxna nga doomi soxna nga waaye danga xam lan mooy sëñ Touba waaye da lan mooy sëñ Touba moo tax nga bàyyi lépp moo tax nga bàyyi lépp ne ci ginnaaw soxna si nekk ci ginnaaw soxna si taxlu taxlu gumba gumba dégluwoo dégluwoo xaaroo xaaroo diisoowoo diisoowoo noonu la ñi la ciy gën a encouragé bu baax ñi la ciy baax sëñ Mamour soo ko bàyyi woon tey ndax soo ko bàyyi woon tey ñu ñëw def si ko ñu ñëw def si ko ndax ñun la war ndax ñu ñun la war ñu ñun nga koy defal kon ñun nga koy defal yoon wépp nga koy defal ne yoon wépp nga koy defal daal mi ngi noonu ne kon mi ngi noonu ñu ngi ñaan daal ne ñu ngi bis bi soxna si eh, yàgg ko fee ñëw soxna si yàgg ko fee ñëw yàlla guddal aw fanam yàlla guddal aw fanam wéral ko wéral ko eh, defal ko li mu bëgg lépp defal ko li mu bëgg lépp àdduna ak alaxira eh, àdduna ak alaxira ci barke sëñ Touba barke sëñ Touba barke waajuram mu tedd barke waajuram mu tedd ndax suñ suñu asan ndax suñu asan ak suñu sooyebu ak sëñ Cheikh bu ku ne xam na seen diggante ñëpp xam nañ seen diggante ku nekk xam na ko ku ne xam na ko sëñ Serif mais toujours da ciy wax lu bari sëñ Serif mais da ciy wax chaque jour kon daal soxna si sant daal ci sant rek la mën a yem ne sant ci sant rek la mën a yem ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal di la ñaanal di sàkku ci yow nga ñaan di sàkku ci yow ñaan boo ndax boo ñaanee mu nangu ndax boo ñaanee mu nangu jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke yàlla na yàlla sàmm la yàlla na yàlla sàmm la alhamdulilah fiha khalidun hadiyati ila jumada saniya من المحرم القدور خدايا هديتي